asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy siiw sen sen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baax di leen fatali yéen a ngi sen euh, programme huile essentielle de la semaine comme ni ngeen ko xamé euh, jëlon nañ vitamine vitamine jeex ñu ñëw ci huile essentielle gantax bu ne huile essentielle ba nga xamni ne am na ko yan ñariñ la am ci walu ngir geram ni ci dal professeur Ousmane Ndiaye comme ni ngeen ko xamé muy borom Boga Bio nek fele ci diwanu Kër Massar di fajj ta fajj gi euh, sukkandiku ci ay gantax yuy sax ci réew mi professeur ginaaw bañ la nuyo ziar la euh, tay dañu bëggoon euh, xam njëriñi huile essentielle bu citronnelle loolu lañ bëggoon xam euh, li nga ci xam nga partage ko ak ñun salaamu alaykum wa rahmatullah señ pap ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu suñu mbokku internet yépp yi nga xamanteni ñu ngi suivre mm. wa citronnelle nak huile essentielle bi comme nuñ ko waxe huile essentielle la bu bari bari njëriñ mm-hmm. ndax baxna ci li ñuy wax wàllu rhumatisme mm-hmm. Euh, jëm ci ay arthrose ak yooyu mhm. mooy buñ ko waxee mooy affaire yu yax yu métteeg mhm. yu demee noonu daaru famille yooyu mhm. euh, yooyu toujours moom niñ ko waxee rek <clears throat> bu dee ci huile essentielle lu ci ëpp da nga ko def benn xamante ni huile végétale na nga nga jël diw lu mel ni huile d'olive bu jaxase ko ak euh, huile kii bi huile essentielle bi di ko ci maasé wu di ko ci frotté wu en général ya, lu ci bëri massage lay nekk waaw mhm. ya, lu mel ni sibiru paludisme mhm. ak feebaru feebar yooyu tamit euh, huile essentielle citronnelle baax na ci mhm. lu mel ni feebaru saqat am na ñuy dem ba ni an tuberculose sax naan moom euh, huile essentielle baax ci ñuy saqat saqat bu bari di ci naan di ci frotter dënd bi ñi nga xam ne dañu amee yaram bi tàng aussi suñ ciy utiliser huile essentielle citronnelle dina dem ba bàyyi yaram bi baisser température mooy tàngaay wu quoi. li nga xam ni tamit anti inflammatoire la maanaam lépp loo xam ni métti métti la. si yaram rek. Euh, te muy am ay douleur ak yooyu. moom it huile essentielle citronnelle daf koy saafara. li nga xamante ni surtout ay piqûre d' insecte lañ. maanaam ay matt matt yoo wala mat mat moustique. Hmm. wala matt matt lu mel ni ay kii nu mu tuddati hmm. scorpion jiite mm. yu demee noonu wala yenn melentaan yi mm. waaw koy waaw seen mat matt yooyu huile essentielle citronnelle bi baax na ci mm. lu mel ni démangeaison aussi wokkutu xasan yaram buy xasan ngay wokkutu noonu donc boo ko amee moom it di ko ci diw baax na ci ñi nga xam dañu am lu ñuy wax tamit euh, yaram boo xam ne dafa mel ni lu xaw a niin yooyu ko ci diw baax na ñi nga xam dañu tamit euh, wala ñu am problème mu ay acné ay picc ci kanam yi ak yu demee noonu. Mhm. Euh, donc bu ñu amee huile essentielle di ko ci def moom it baax na mën na leen a soulager bu baax. Mhm. <coughs> huile essentielle la boo xam ne aussi c'est anti stress. donc euh, ñi amee stress mën nañ ko di jël di ko consommer. Mhm. li nga xamante ni tamit dañuy am problème mu digestion. donc ci système digestif. moom it baax na ci bu baax a baax. ñi nga xam ne dañoo am problème mu rein fonctionnement xam ne rein bi ni mu waroon a ko mhm. wala deful liggéeyam wala mi am ay jafe-jafe mhm. bu ñu amee huile essentielle citronnelle moom di ko utiliser baax na ci wàllu rein wàllu rein waaw ñi nga xam ne amee tension artérielle mhm. muy hypertension tension buy yéeg ñoom it bu ñu amee huile essentielle euh, citronnelle di ko utiliser yàlla mën na ci def euh, saafara ba tam ba tension boobu wàccaat normal mm-hmm, mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy amee li ñuy wax transpiration excessive nga xam ne dañuy ñaq ñaq bu jéggi dayo mm-hmm. la ñuy ñaq ñaq bu bari daal parfois euh, même buñ deful dara sax dañuy ñaq wala buñ doxee tuuti rek ñaq bu am solo bu bari donc ñoom it bu ñuy am huile essentielle euh, citronnelle di ko utiliser yàlla mën na leen a saafara donc yooyu daal moom huile essentielle njëriñoo yi ñu ci wax yëpp daal moom da koy da koy faj tàngat waaw tàngat ak mm-hmm. Mm-hmm. donc da koy da koy saafara léegi bëggoon nañ xam nag léegi comme euh, ni ko nit ki di wala même chose comme huile essentielle waaw huile essentielle yi moom comme ni ñu ko waxee rek yëpp ñoo bokk lu leen di jëlee cest à tere mooy que ni utiliser ko moom kese kese mm-hmm. ak huile essentielle bu mu mënti doon dañ koy tere bi ci des mooy bu dee xale aussi dañ koy tere eh, ci huile essentielle parfois bu dee jigéen juy nàmpal wala yu nekk en état mhm. euh, aussi dañ koy tere huile essentielle yi parce que day day forme ëpp ni koy utiliser toujours mooy da nga koy diluer maanaam da ngay wut exemple nga wut sa ndox mhm. wut sa quelques gouttes sotti ci mhm. wala nga wut sa euh, lem comme ni ñu koy faral di waxee coude de lem jël sa xetu ñett ay quelques gouttes toog def ci wala nga jël sa bekk suukar am nga koy utiliser wala nga wut uh, dara daal def ko ci. Mm-hmm. li nga koy kiiyee noonu. donc nit ki jël bekk suukar def ci ñaari topp. waaw wala bu jël uh, kuddu lem. def ci benn wala ñaari topp ñaari topp wala ñetti topp teg ko mm-hmm. noonu. jàllale ko mm-hmm. jàllale ko noonu lañ koy utiliser quoi wala nga def ko ci ndox noonu. naan ko. kenn du ko moom donc. même kese moom dañ koy tere. même bi noonu kese sax parfois lañ lu ci bëri dañ koy dañ koy tere. parce que mën a indi allergie ku luy demee noonu. waaw dafa da nga fort daal dafa fort. bu dee diw si yaram da nga koy jaxasee karité. jaxasee ko karité wala. wala diw wala diw diw wala yu na am koo xam ni. vidéo bi la tombé juste. waaw teetaanul yeneen ne nit ñi dañ koy def ba. nit rek benn émission la yi mos a seetaan ci du jeex mu pose ko woo la waaw <laughs> waaw am na ñoo xam ne rek moom yàgg nañ laa suivre dañ yàgg ñoom dañuy topp moom ah, comprendre naa ñi ñuy suivre wala ëpp dañuy xam mais am na ñoo xam ne moom naan la maa ngi damaa taal eh, eh, YouTube bi rek yem ci sa vidéo waaw oh. comprendre te léegi duñ seetaan sa vidéo am jeex mais dañ ci seetaan tuuti rek pose ko nga wax ci mm-hmm. benn feebar rek oh. ñu pose commencé woo la <laughs> li sëpp day fekk nit ki di def recherche. waaw kay waaw ñu bëri dañu fekk waaw. bu ko defee bu seetaan bu seetaan nga commencé expliqué. waaw moom day mel ni yow yow moom nga moom ngay waxal. waaw kay moom day naan loolu la. <laughs> sooy recherche daan amal solo. Hmm. nga tombé ci ko fay leeral da nga naan kii xanaa moom yàlla nga yónni ci man. question <laughs> sa papa dafa ñuy wax lu mel noonu xaw ma mos naa fee wax am déet benn anecdote rek papa de benn une minute rek. Hmm. pour comme li ngay wax ni pour confirmer la. Hmm. papa dafa wax ne dafa am benn waay boo xam ne maanaam misaal dal dafa amul xaaliss ba bew mun yàlla dama bëgg invité ah. pour pour ñi may waxal ñu mëna comprendre mhm. yàlla ni ko waaw mhm. dina ñew jour nangam mom mhm. comme ko bour la wala amna la mu def kudd yi or plate yi or muy tok or xam nga defer lepp installé fo xam ne weñ sax du fa jaar lepp mu def pour accueillir yàlla nañu tok ba ci yag ben euh, dof ñew di saraxu mu ko puusal fi du sa place nek fi du sa du sa ki du sa du sa place daal bul yàq bul yàq xew bi voilà jéego caag beneen gaan koo xam ne loxo yi dafa dagg mu takk deret ñëw mu dàq ko di yelwaan mu dàq ko keneen ñëw mu dàqaat ko ku dof bu salte tilim ba mu benn sirmaxa daal mu dàq ko toog toog ba heure bi passé gisul yàlla mu waar ko ni ko ma ne ma woo naa la ñëw naa kii la te yaa xam ne invité comme ni wax nii rek fu nga comprendre yàlla ni ko ñëw naa fa ñetti yoon nga dàq a akbar te mooy ñi mu yónnee woon mooy dof beeg. gaana beeg silmaxa bi yëpp. mu dàq leen mu xeeb na leen. yàlla ni ko ñëw naa ñett yoon nga dàqam te yaa ma invité woon. ndax pour wàllu yàlla fu nekk lay. noonu lay ñëw. moo tax xeeb nit baaxul quoi kenn du bàyyi xeebaate bi. <laughs> kon professeur mi ngi bëgg gudd. ñu bàyyi la nga tàggatoo ba semaine prochaine incha allah. jërëjëf sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyuwaat mbokku internet yëpp di leen baaluwaat àq rek ci guddal yi nga xamante ni ñu ngi ko guddal waaye ñu xam ne lépp nag leeral la ak euh, bëgg lu baax rek. Mhm. ak it bëgg nit ñi jariñu ci rek. waaye du bëri wax du am jot. dëgg la waaw mais lépp jàngat la rek. dina am koo xam ne xëy na bu seetaanee vidéo bi. Mhm. xëy na feebaru dara dal ko. Mhm. mais xëy na ci njàngat yi mën na ci jariñoo. waaw liñ ci jublu daal mooy ñëpp jariñoo. di leen jégaluwaat nag di baalu ak asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah.